du naan te yaayam naanul ñu bokk même kër bisu génn néegam dëkk néegu yaayam nga xam ne loolu mbëggeelu yaay la nga xam ne sa yaay day dem du alal la ko téye du kër gu rafet du kattan du dara nga xam ne sa yaay ji day dem mënoo ci dara yàllaay reye yàlla xool li ko ne mu def ñàkk waajur a gën a métti ci àddina surtout ñàkk yaay waajur dafa rëy sa papa boo ko ñàkkee dina met métti mais yaay mooy reen ki la ëmb juróom-ñeenti weer benn bés dara koo rey soo ko ñàkkee du la neex xam ne ki la indi tey moo dem ki la nàmpal moo dem ki la dugal ci àddina moo dem ki la xamal àddina moo dem soo feebaree mu nekk say nopp moo dem soo feebaree du lekk soo feebaree xelam du dal boo tukkee moom rek mooy laaj egg nga boo bu sa biir méttee biram day métti bu sa xool tàngee day mer lu mu la mere mere yaay du morom ci àddina parce que boo ko ñàkkee ñàkk nga ko lu dabadi ci àddina ñàkk na koo xam ne doo ko abadi ci àddina di ko ñaanal sunu maam bi yal na ko yàlla xaare àjjana piitu jar na yërëm bu ñàkk yaay ñàkk papa jar naa yërëm kon yal na ko yal na yaayam yal na ko yàlla xaare àjjana bu dee fonk waajur la ak yërëm waajur ak teral waajur bu doon ko fi bàyyi du dem de bu bëgg dooma ko fi bàyyi du dem des nit a gi dem di bàyyi njabooto xam lu mu fi bàyyi des nit a gi génn àddina mu xam ne man damay génn àddina mais ay njabootam moo tax du mënta dem parce que mu ngi leen di ñeewantal kon kooku bu demee ñàkk nga koo xam ne doo ko amati caan te des fois nit nekk ci sukuraat fukki juróom benn weer heure bu naree génn àddina bu xoolee ay doom rek xelam day ñëwaat ci àddina parce que bu leen a bàyyi mais yàlla mooy xool ko neex mu def yàlla mooy reyee mooy xool li ko neex def kon ni suñu yaay jeen ko yàlla xaare àjjana di di jàllale message benn message boo xam ne dama ko jàllale ñun nutu soo bis yi tey bu sa waaju deewee bu sa waajur ah, bu sa waajur génnee àddina bu dee cofeel gi nga am ci moom bëgg gi nga am ci moom yu baree bari nañ ko maytu yu bare bari nañ ko maytu ci dëj yi muy da ngay ñëw ci dëj di xool li lay jaxal di xool li lay jox di xool li lay kii te nga sa yaay ji génn àddina mu indi la ci àddina xamal la ci àddina mais léegi dëj dañ koo jàppee business dëj dañ koo jàppee ndawtal dëj dañ koo jàppee teggi dëj dañ koo jàppee turu famille dëj dañ koo jàppee ñi indi ay jaxal 2 millions indi ay jaxal cinq millions am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi naan a ah, am na ñoo bari ñi naan man mii ñu nekk nit ñoo xam ne am na ñu bari du ñaan seen yaay génn àddina bëgguñ sax seen ay gaay am na ñoo xam ne seen yaay bu génn àddina benn jooy leen di jooy di xaar retour bi jaxal yeeg yu ci am yeeg déedéet ki la mu juróom-ñeenti weer bu génn àddina amoon naqar ba ba juróom ba amal naqar à vi parce que sa yaay la moo lay indi ci àddina moo tax nga am kër moo tax nga am moo tax nga am kër moo tax nga am lépp ci àddina moo tax nga am lépp ci àddina bu sa yaay génne àddina reculer nga xam ne yaay du morom na nit ñi bàyyi xel na nit ñi xam ne ni yaay yaay kenn du ko amati bu sa yaay génne àddina doo ko amati ci àddina bu la boo soo ñàkkee sa yaay ñàkk nga sa reen ñàkk nga sa gàllaaj da ngay neex bu ma lu ñëw da la yóbbu lu ëf da boo ñàkkee kooku nag recu rëkke leen nga xam ne ñàkk naa sax waajur li yëpp affaire àdduna la dañuy ñëw ci dëj mel na ko ñëw ci de dañuy ñëw ci dëj fàtte ki génn àddina ci jour bi ki génn àddina nga ko fàtte yow mi sa yaay génn sa fàtte nga sa yaay àddina fàtte ko ndax soo nit soo biiseeg ñëw kaf reetaan yeeg tàtt ci xool loo kii ñaata la ma jox ak nit ñi di kii werante te kii génn àddina moo la indi ci àddina bu dee sa papa la mu la indi ci àddina bu dee sa yaay la mu la indi ci àddina léegi dañuy yàqam bi sax léegi seen waajur gaañu pour ñu jéem ci am ay teraanga ak déedéet waajur du morom alal bi day jeex de xaaj bi day jeex tàkk loo ko loo am am am am bu la joxoon ay jaxal 60 millions billaahi wal bés dina ñëw di nga xalaat sa yaay xalaat boo xam ne xaaj bi da koy fàtte nañu xam ne dee am na loolu moom na nga ko laaj ustaas parce que du ma ustaas jànguma daayira jànguma alxuraan waaw waaw xam nga man affaire jaxal du ma ko xam parce que jànguma alxuraan xam nga ni da ngay loo xam man daal jaxal ci àddina laa ko fekk te fii ko fekk mais nit bu la joxee ñaar fukk téeméer ñaqam la la jox nit bu la joxee dërëm ñaqam la la jox parce que dee du business dee du yii parce que dee la yéen xanaa xamoo dee mooy laas takk say loxo saay sa bakkan ay carton loo am alal alal alal alal juróom ñaari perka lan lay sàngee parfois bu 500 lan lay parfois lu mu rëy rëy rëy rëy mën ta weccu 200000 parfois lu mu rëy rëy 500000 la ut la te xamoo ba xam dina la xeeñ wala du la xeeñ nga xam ne dee du caaxaan nga génn àddina tey li gën a rëy tey xamoo ñett fanu bàmmeel kenn xam ko ci àddina ku xam lu Serigne Sambay nee na xam ñett ku xamul ñetti fànn bàmmeel ni mel suuf loo neex defal nit ñaa ngi nekk ci showbiz bi def leen neex nit ñaa ngi nekk ci internet bi def leen neex dee dee dee nekkul business boo xam ne dañ ko jàppee business lan laa war a jaareen biisu laa ko war a jox ak ñii ñëw di tàppanteeg ñii ñëw di rente am na ñoo xam ne ñi ngi sax seen yaay ci xool du leen neex am na ñoo xam ne ñi ngi sax seen yaay du loolu la jox ci àdduna du leen saf yaay du caaxaate nan xam ne dee du caaxaan li yëpp day jeex ci àddina man nga ko xam tey xamoo kii ñu suul tey xamoo lu muy fekk ci biir suuf yow nga nekk ci ci dëjëm di def lu la neex di kafak di reetaan di tàppante nañ xam ne dëj léegi dëj dañ koo jàppee léegi dëj dañ koo jàppee turu famille léegi dëj kenn amatul amatul impact bu mu amoon amatul benn hectare amul impact bu mu amoon amatul ci àdduna xanaa xamoo dëj ba lay ba lay suul tey ci jour dëj bi da ngay gis nit ñi di daanu di jooy amatul kenn ku jooy di yow di ñëw ba dëj ba ñibbi doo kenn ku rongo jom kenn ku rongo jëm tuuti ci àddunaam ñu ngi jëwante di waxante lu ñaaw xoole kii lan la sol xoole ki ñaan la jaxal xoole ki lu mu takk ci ewoon xoole kii non na te jàngkat yi tamit nañu xool jànguñu te te yar rek tax des fois dañuy ñëw ci di jàng nax alal dañuy ñëw ci dëj di nax alal dañuy ñëw di jàng di wayaan ci dëj yi kii gaañu Seydunaa Muhammad nga doon tagg mais ki yaayam du gaañu ngay tagg yaayam di ko jàngale yaayam ak di jàngal moom ni mel ak déedéet nanu tagg ki tax ñu gën a tagg muy Seydunaa Muhammad na jànkat yi xool li ñuy def day ñëw ci dëj jàppee ko tuuru famille jàppee ko métier ki ki gaañu yaayam gaañu la ni kii di ko di ko jàng naan ko sa yaay jaar fii te yaayam jaarul fenn Seydunaa Muhammad da jaar fépp na jàngkat yi xool dëj bi muy ñëw xool sama yaay bokk ak masaw yi ànd ak moom ci masaw yi dem ñibbi lii la awma ci leneen lu ma ci war a def ci àddina yaay ak doom la parce que moom laa tuddee moom laa moom moom laa jox sama première sama premier njëkkee moom la kon nag yaay bu sax ci man la yaay boo xam ne la sax ci fekk na ma ci guddi fekk na ma lëndëm fekk na ma lépp muy metti moom laay gis muy neex moom laay gis kon sama yaay la. waa ni waaw lii rek waaw lii rek tontu la parce que nit bu yaayam gaañoo duma ci mën a wax ci moom parce que dañ lay ne lii du affaire kaawu mbaacu du affaire kaawu soo bi lii dee la dee mooy laas dee mooy mooy laas ci addina kon nit ko bu deewee yaayam génn àddina amoo lay wax ci moom lu dul ñaanal ko yaayam xaaree ko àjjana li may wax ci moom xaw ma ko parce que affaire dee la man dee ma fi ne bu ma génnee nag ba génn ci dee bi nii commencé soo bi mais dee ma fi ne waxi dee laay te effectivement comme su waxee ay waxi wax. man dof laa. waxi dof laay wax te dof te te dof pire laa mais dof am personnalité laa dof bu diiñ laa dof bu xam may kan laa dof bu ma kenn dof boo xam ne la. parce que c'est normal lool laa naxee Sénégalais yi ba nekk dof si dama yàlla suturaale ma am ci ma bëgg moo tax ma nekk dof ba tey dof laay nekk ci àddina bu ma génn àddina dof laay nekk ku ma jàppee nit nag jàppal ne yaay yaay nit mais dof laa. xanaa mu muñ mu muñ gën a xam dee du caaxaan na muñ waaw na muñ daal na muñ waaw na muñ ñàkk yaay daa metti ñàkkoolu amati dafa metti de waaw wax jaa ngi bari nag te dañ leen ne yal na yaay xaare àjjana su oyof